maa ngi tudd du Diakhaté mais ñu bëri Junior Diakhaté lañ xam wala Ninthié ci ci réseaux sociaux yi. Ninthié njaago la euh, du du lu compliqué ah, ñu bëri ñoo nit alors que euh, c'est Ninthié euh, turu njaago la quoi njaago yi ñoo yow xale bu góor ñu naan Ninthié donc tur la rek surnom ñu ñu ñu adapté ko di di ko di ko utiliser ci réseaux sociaux yi. xam man dama bëri ay xam ne ñoom ay chrétien la ñu ñi may àndal ñu ci bari ay chrétien lañu donc man nag maa ci nekkoon musulman donc euh, njaago yi daanaka boo bëggee bokk seen yenn aspect culturel yi foog nga am tur cosaan donc ci ku di ku buñ musaan dem fenn balaa ñuy dugg foog ñu utal ma benn tur benn tur soit chrétien wala benn tur cosaan donc noonu la nince bi juddoo mu nekk benn tur boo xam ne dañ ma ko joxoon pour ma mën a bokk ci seen yenn rituel yi bu tudd cosaan xale bu góor bi donc ma garder ko ba tey noonu la foofu la tur bi man enseignant laa damay jàngale maa ngi élémentaire maa ngi école bu tudd El Hadj Mour Diop Medina. waaw fii laa juddoo fii laa yaroo Grand Dakar màggee Grand Dakar ba tey maa ngi dëkk Grand Dakar donc mun naa wax ni lépp loo xam ne ñi ngi koy def aussi ci quartier bi la commencé. école yi benn naa wax ni benn partie la rek suñu engagement ñun daanaka fi ñu dëkk dañ fi teel engagé euh, engagement communautaire luñ teel a def la. Euh, école yi juste benn partie la ci li ñuy liggéey maanaam jéem defal dara askan bi wala jéem def dara pour impact sa communauté mais boo xoolee suñu jaar-jaar am na fu bari fu ñu jaar balaa ñuy agsi ci école yi euh, defar nañu ay gox mu tilim ñu ñu bale ko defar nañu ay école fekk mu salte ñu ñu ñu ñu bale ko fekk nañ ay xale yoo xam ne amuñu lu seen waajur yi fayee pour ñu jàng ñu jàngal leen gratuitement donc quartier bi lépp lu mu woote ci engagement communautaire dañ doon dem fekk suñuy mag ànd ak ñoom di xool di jàng donc ba noonu tey ñu agsi ci école yi mu doon benn programme boo xam ne peut-être que ni euh, module bu ndaw la rek ci engagement communautaire bi ñu am ñu koy dérouler ak yeneen ndaw parce que peut-être man la ñuy gën a gis ci kanam mais liggéey bi du man kese daanaka ay jeunes yu bari la mën naa wax ne ñoom ñoo ma gën a motiver li ñuy liggéey nii sax ñoom ñoo ma ko gën a bëgg gën ma gën ma ko gën ma ko fonk donc benn genre Euh, consortium la rek ay ndaw rewmi bolé sen seen bolé sen seen xam-xam di wër Sénégal yépp di défar ay école bi ñuy defar école école yoof bi dafa am ay ndaw yo xam ne dañu bëggoon ñëw bok ci liggéey bi euh, tay ndaw ñooñu ñom ñoo créé team bi team bi man duma ci duma sa sax administrateur team bi amna ñu ko euh, en plus c'est bien organisé donc jeunes yooyu tay ñom ñoo nekk ci team bi di liggéey pour seeni rew amna na ñoo xam à chaque fois bu ñuy dem fenn dañ leen di désigner comme chef de projet ñoom ñooy lijjanti wàllu matériel bi lijjanti transport bi lijjanti lépp luy lekk ak naan lu ñu war soxla foofu boîte médicale et cetera am na ñuy bind lettres yi ñuy bind demande yi et cetera am na ñoo xam ne ñoom ñooy yor collecte matériel bi am ñoom ñoom ñoo koy saytu am nañu chef peintre chef carreleur chef euh, électricien et cetera donc li ma la wax sànq rek mooy daf liggéey bi nekkatul man kese nekkatul Moustapha kese nekkatul Pape Samba mais daanaka consortium la daanaka ay jeunes yu bari ñoo ci ñëw boole boo bokk ci gën ñu ko bëgg gën ñu ko fonk donc ñun tamit lu dañoo am droit wu tey multiplier, ak responsabiliser leen. boo bëggee intégrer c'est simple da ngay xool ñu plateforme yi fan la ñu war a mën a nekk comme suba ñu ngi dem Touba nga ñëw participer ci activité dañ lay dañ lay comme membre donc loolu groupe bu plateforme whatsapp bu information fa euh, famille euh, membre donc boo ñëwee ci activité rek accès rek dañ donc non pour bokk pour team gros la dañ koy ci internet bi ne leen li bëgg donc nit ñi ci suivre ñoom participer à hauteur de 100 francs, 200 lois, amba, car nous menons des suni projet. École une devrait yep, aïnit nyonyo delsen alal defti. À part ben école, exception moi école 3 Bukir Majabel, comme ben ante butu de Ocha monyo finance quoi entièrement. Mon nom n'est ni signé presque 15e école ou 16e, 16e école bo comme ne demne ni fait défaut d'arrêt. Après une excès euh, école comme le jardin fait défaut ben action, soit nous défaut don, voilà nous hall déjà là nous quoi ramon défaut ba pare commencé nañ gas ay ten donc du loolu du loolu kese lañ dem mais mën naa ne ñu ngi suñu seizième école ñu dem Touba suba pour euh, eggali euh, li ñu xam ne dañ ko tàmbale woon ci daara sëñ Alaaji Mbàkke bi maanaam defaraat ko peinture ko karale ay toilettes donc je pense que ne ñu ngi suñu seizième école ñun dañ ja dañ dekkoon ci école élémentaire yi kese nit ñi nañu ah boole leen ci daara yi parce que daara yi tey xale yi fa nekk dañu war a nekk a égalité de chance ak yéen seen yeneen i war nañ am cadre bu baax ñu gis ne tabax nañ ko ñoom ba mu noppi daanaka peinture moo fa des ak yenn travaux yu ndaw ñu wara mëna dem joxe suñu participation par rapport ak lolu parce que fiñu ñu euh, il y a trois jours dara daara euh, mata Dramé bu seigne Madi Dramé même chose dara bi paré amuñu toilette ñu daal di fay tabax ay toilette peinture ko défar fa bu mu rafet pour xalé au moins seen néeg ñi ñu xarale ko comme ni

maanaam xool ni école bi yàqu na mur bi daanu na wala classe yi baaxul wala xale yi amuñ fuñ toog ñu jóg ak seen i propre initiative bañ ci xaar kenn jéem def dara pour cadre bi changer loolu mooy objectif bi loolu mooy victoire bi gën a mag mais tey bu déggee ñun ñoo war a defar école yëpp loolu moom mooy ñun échoué nañ mooy li may li ñuy def nii amul benn njariñ tey ñun démultiplication lañ soxla ci li ñuy def maanaam ndaw ñi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi gis ni li ñuy def ñu fexe xool nan lañ ko toppandoowee ñëw jege si nañu ah ñun kat gis ni ngeen defar école bi nii ngeen ko defaree ñu won leen yoon wi ñu daal di koy defar commencé nañ ko am na ay ndaw yu bari tey ñu ngi commencé di jéem def comme ñun di def crowdfunding di xool na la ñuy peinturer école euh, village bi wala nan la ñuy defaree teen wala nan la ñuy defaree benn activité boo xam ne day am impact communautaire mais ñun tey bu dee dañoo nar a defar école Sénégal bi yëpp saay man suba damay bàyyi parce que bu boobaa mooy li may def nii amul benn njariñ tey objectif bi mooy jeunesse bi ci boppam ñu wàññi kaas bi yokk jëf bi hôpitalu réew mi hôpitalu dëkk bi baaxut mun nañ ko defar wala bu nu boolee suñu doole am na lu ñu fa war a mën a def nan ko def te buñ ci xaar kenn bien vrai ñi ngi fay ay taxes ñi ngi fay ay impôts mais tey activité communautaire yi ñuy def ak ak euh, engagement communautaire bi ñuy def defaluñ ko kenn parce que tey bu ma defaree hôpital bi mu baax sama jabar war na faa war a mën dem muccee bu ma defaree école bi mu baax sama doom wala samay rak war nañ faa war a mën dem jànge mu doon cadre bu rafet bu baax loolu kese la mu ñun mënuñu defar lépp te duñ ko tax jéem mais quand même am nañu ay list école yoo xam ne mi ngi fi tege mu nekk ay urgence danañ ko jéem ci suñu kéemtalaay kàttan ñu defar ko ñun xaaruñu état bi defal ñu dara parce que li ñuy def nii defaluñ ko état bi réew mi lañ koy defal te réew mi je pense que ni tey moo jiitu te moo moo sut lépp loo mënti gis du ma toog mukk ci benn plateau télé wala ma benn micro ne état bi maa lay woo ci lii parce que état bi gis na li ñuy def tey

bala école tidji gis ASC bi mune man de sama école diw man ma koy dem bay ma koy dem nettoyer bala xalé di c'est de très bon modèles ñu ñep nañ ci japp ku ne bo jappé sa localité euh, def dara rek école yu bari dana paré pour Nous accueillir yi jour rentrée de classe ñun un programme bi am dañ ko euh Nous nank ba kérok muy daj pour mu daj nak ñep dañ ci wara a nan lañ faire jappé moy que ndaw Sénégal gi war nañu non non instant bi politique politique mais fi ma dëkk candidat jeune ici ah, issu de euh, du mouvement associatif dénommé Mam Tierno, Birahim Ndiaye bëgg gagner la mairie bi man dama koy comme étant un sympathisant de la génération Jeff, mais man un sincèrement politique suis un politicien j'ai une ambition politique je euh, mon politique parce que activité de convenir uma je ni ma ko gisee ni koy si convenir parce que euh, on fait tout sauf de la politique waaw ah, on fait tout sauf de la politique la politique en tant que telle Sénégal dañ def mais du politique parce que man pour man politicien bi ak politique dëgg mooy que ni nga xool li cité bi soxla nga daal di ci jóg te doo xaar dara activité bi du benn moyen boo xam ne da nga war a mën a changer statut mais benn moyen la pour nga mën a liggéeyal sa askan projet yu bëri na ñu ngi defar ay teen am na teen yu bëri yu ñu yu ñu commencé daanaka am na benn bu ñu commencé pété au bac Euh, nekkoon ci préparatif pour war ko fa gas am na benn bu ñu def fii Taïba Grand Dakar euh, am nañu projet wu euh, xool li nga xam ne doxut ñu def ko ñun dañuy def dañuy xool li nga xam ne day am impact positif ci communauté bi yëpp ñu daal di koy def boo xool activité yi def yëpp c'est des activités positives qui impactent la communauté directement parce que ñun li daanaka communauté bi la ñuy liggéeyal li ëpp ci li ñuy li ñuy li ñuy soxla ñoom ñoo ñu koy jox donc école yi ñu ngi fi mais am na yeneen projet yoo xam ne ñu ngi koy préparer parce que tey defar nañu ay kër mu nekk ay chantier privé yoo xam ne tey xale yi formé nañ leen ci ay métier maçonnerie peinture carlage et cetera donc am na ay mbir yu bari yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy waajal incha allah